ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بكي تيلا ثلاثة juróom benn fan ci weeru ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi alayhi wa dëppoo juróom-ñetti fan ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom benn fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la konte ci talaata ji rafet na li ñu ciy tere tere wàccandiku moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal samay bàkkaar yàlla na nga ma baal yow yaa jéggalekat bi tey yërëmekat bi rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bégalal wii xeet ci ak yëkkatiku ak dal ci dëkk yi ak ndimbal ak yëkkatiku ci diine xadis bi abu daawud moo ko génne qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam basir hadihi al ummata bilsanaai waltamkini fi lbilad walnadri walrifaati fi ddin axrajahu abu daawud mudda salaamika bi xayri wuddi liman ma min asaaka kadi mudda salaamika bi xayri wuddi liman ma